Mbacké génn na àdduna ni ki démb cérémonie levée de corps bi nag doon nañ ko amal tey foofee sa jumaa bu Mermoz si teewaayu njabootam ak yeneen i kilifa ñu defal ko nag ay seede yu rafet. ñuy ñaan yàlla rek li mu fi liggéey bàyyi ko fi ñu continuer di ko jëriñoo génération yi topp ci ñun xam li mu li mu fi def te ñu bàyyi di fàtte ñi nga xam ne seen giru dund dañuy xeex pour ñun xeex ci ñu ba ñuy dund duñ leen wax dara du leen wan ne naw nañ leen respecté bu ñu nag ñu lu baax ci ñoom leen. professeur Malick Ndiaye doonoon na ku ñu ràññee lool ci xeexal askan wi ci fànn yëpp bu ñu sukkandikoo ci ay xaritam ak yi ay naatangoom. kon moom Malick dee na physiquement mais intellectuellement du fi jóge parce que li mu doon saxal jeg bi na xam-xamam daf ko poussé ci engagement social. di liggéey ci li jëmale jëmale réew mi kanam ci wàllu démocratie ci wàllu koom. Euh, dug bokkoon nañ cercle euh, d'initiative des intellectuels du Sénégal man ak moom di ci liggéey. ay kilifa yu nekk ci langue politique bi moo xam ñi féete ci nguur gi moo xam ñi féete ci kujje gi ku ci nekk yaa ngi koy defal ay CD. moom bien sûr universitaire la am ay xalaatam euh, doon tasaare xalaatam. mais c'était vraiment un un intellectuel révolutionnaire donc loolu laa gën a si moom man suñu xarit la woon donc xarit bu yàgg. ma ko xamee léegi pën na ñeent fukki at ca ba ñuy nekk étudiant bokkoon parti euh, fa mu ne woon mosu faa jógee bañkat la woon aussi mënuloon tere kenn. Euh, kenn mënu ko woon a tere wax la mu xalaat. professeur Malick Ndiaye doonoon na sociologue doon itam ab bindikat mu bind nag ay téere yu bëri yi bokk na ci bi mu tuddee Sénégal où va République ñu fas yéene ko jébbal boromam tey foofee ca Touba ñu ñaan suuf sedd ci koom te borom bi xaare ko aljana firdawsi. ñu dem ca